donc non seulement cena wax na ni élection fichier bi ñu demee élection de législative deux mille vingt deux baaxul matul mais également mettruñ ko à jour donc ça veut dire que ni conseil constitutionnel fichier bi nga xam ni moom lay contrôler actuellement parrainage yi fichier boobu nekkul fichier bu fiable nekkul bu fichier bu baax bi de manière générale daal mooy peut-être fichier bi nga xam ne moom mooy bu 2017 bi donc conseil constaté loolu li koy wane mooy parrainage yu ci bëri parrain yu bëri selon li ñu ko doon contrôler ci commission de contrôle bi ñoom nekkuñu ci fichier bi loolu Sénat dafa ñëw confirmer ko en tout cas ak ak communiqué bi mu def xaw non day jox non seulement day jox dëgg mandataires yi mais la Sénat s'accuse mi ngi accuser boppam en tant que organe indépendant ci élection yi mi ngi enfoncer la DAF mi ngi enfoncer le ministre de l'intérieur ministère de l'intérieur mais également mi ngi enfoncer conseil constitutionnel